Fall nuyu naa la. waaw fay la. tey nga waroon bëree la Thérèse combat bi yàqu. bari yéeg la la sant yàlla ndax jàpp naa ni sama combat yàqul ndax combat Bulldozer sama combat la man it sama combat combat Bulldozer la contrat moo ma boole woon promoteur bi ne ma la Thérèse ngay bëree ma préparé sama combat jékki-jékki dégg ci ay rumeur ñu ne ma sa adversaire dafa damm. man leen adversaire bu damm loolu noonu man waa CNG laa amal man lu dugal daal man sama yoon nekk adversaire bi damam man yëguma ko sama yoon nekk si wax nañ ko mais man waxuñu ma dara may déglu di préparer sama combat ba vendredi sama manager woo ne ma waa CNG am nañ médical ci adversaire bi médical 15 jours nee nañ xaw dafa damm man leen man adversaire bu damm nan la mën a amee médical 15 jours tañ ne dafa damm loolu te dama damay ndaw waa Malika yónni ma yàqamti ma waa Yëmbal waa Benn Baraak waa Kër waa Montagne waa Mbëbës ñoom ci man yaakaar may préparer combat nekk ma fi pour waaj benn mbër ay deux ans jëm trois ans nekk ma ci loolu contrat bi la treize la yemoon bëréewuñu man jàpp naa ni pare naa ci contrat boobu bu ñu joxootoon avance tay tay tay ma yóbbu ko reeree ko waajal combat boobu waaw foo jëm ak foo teg sa bët ak saa nii ñi ci man xamal laa lamb dafa maa soxla lamb am ci man yaakaar te tay samay morom rek fi nekk di prouver képp ku ma lamb booleel pare pour bëreeg yow ku ñeme nag waaw mbër mu ñeme bu ñu ma lamb booleel pare naa pour bëreeg moom voilà. ok jërëjëf jërëjëf di nuyu ñëpp képp ku ma doon jàppale lamb ji doon ma préparé génnee dërëmam def ci ak sama gars aw ma seen fay ndax dañoo préparé defar seen blouse defar seen t-shirt waa benn baraag waa yëmbër waa Kër Massar waa Malika waa Luba Ñaax waa Kër Massar cité pénitence ñëpp préparé te xam nga bu demee nii day métti di leen masaw naan leen nii la war a mën a demee naan leen seen mbër mu ngi préparé pour beneen avance mais pas Fils de Balla voilà ok.